asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke di xalif général ku lu murid na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu sëriñ Sidi Mbàkke di xalifa sëriñ Abdoulaat ak mbooleem jabootu sëriñ Abdoulaat Mbàkke yàlla nañu fi yàgg lool te ànd ak wér ñoo leen di yëgal màggaluk sëriñ Abdoulaat Mbàkke ñu jàpp ko juróom-ñaari fan ci weeru suleet dëppook ñaar fukki fan ak ñett ci weeru korite sëriñ Sidi Mbàkke ànd ak mbooleem jabootuk sëriñ Abdoulaat di ko fàttali mbooleem jabootuk Maamaaram Mbàkke waaye di ko fàttali nag mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoo di njabootu seexi sëriñ Tuubaa yi waaye di ko fàttali mbooleem julit yi di ci woo itam mboolem turandooy Serigne Touba Cheikh Abdoul ak fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew waaye di ko yëgal mbooleem kilifay aada yi ci njiitul président de la république son excellence monsieur Macky Sall ak Mouhamed Boun Abdallah Dionne ak mbooleem gouvernement bu Sénégal di ko yëgal itam mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo di parti politique di ko fàttali jullit yëpp di ci soññu taalibe yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn comité d'organisation màggaluk Serigne Abdou Lahad Mbacké ànd ak commission bi ak mbooleem kuréel yi ci aju di soññee nag ci njàngum alxuraan mi xaside yi di fàttali itam am table ronde solo boo xamante ne bii daañu ko fukki waxtu ci guddi maanaam 22 heures ñuy waxtaane taxawaayu sëriñ Abdou Lahad Mbacke ci yaatal jikko alxamis bu ñu ne gannaaw suba la màggal gi mbokki mbaaxool yi ni ñu ko baaxoo defee dina am durus bu am solo boo xamante bi danañ ko amal ci kër sëriñ Touba sëriñ Abdou Lahad gannaaw bu 17 jotee bu ñu demee ba juróom benn fan ci weeru sulet mu am jataay bu am solo bu ñu fas yéene amal

ñu ko dundal ci alxuraanu karim xasiday sëriñ Touba ak lépp lu ñu baaxoo def ci ak ñaan ci bis bu sell bi waaye ci biir dëkk bu sell bi di Touba ci kër njabootu sëriñ Abdou Lahad ak mbooleem taalibe fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa